asalaamaaleykum bokk yi tey jii di talaata juróom-ñaari fan ci weeru kool di guddi juróom-ñetteel ga sëriñ Sow wax na ci xorotul ay ni guddi juróom-ñetteel ga ku ci julli ñeenti raaka raaka bu ci nekk gannaaw faatiha nga jàng tabadiya daa ñetti yoon ku ko laahu ahad benn yoon bokk na ci ngëneel naafila googu des na ko bindal tuyaabay muñkat yëpp ak santkat yëpp dana mel ne it wàccee na ab kaamil te des na ko bindal tuyaabay jaamu gi yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da koo ah, yendoo woor fanaane koo julli te dees na digal ñaari malaaka ñuy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis penc ba te yàlla dana ko nangul ak julleem ak kooram te dana ko dimbali it dana ko taxaw ba kenn du ko mënal dara te dana ko musal ci saytaane